والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي نيغي دل سيواتك ينتي سنو درس حياة الصحابة في تي سين تلفزيون إسلام تي في دينيان يلا يلا دفل نجامي أدونا دفل نجامي الله خير فواي مولاني سلولو جالي أحبابي ba tey نكون ngi nekkoon ak yéen ci ndénkaane loolu nga xamante ne عمر ابن عبد العزيز ديكو تلير للملوكا نجيت لماندو نجيت لماندو نان ci leeralal melokaanu njiit lu bokk na si li mu ko waxoon ginnaaw bi mu ko waxee ne ko yàlla subhanahu wa taala dafa wàccee fayantoo ngir nit ñi mën a dund mu ne nag fa kayfa bu demee ba nga xamante ne euh, ña yàlla subhanahu wa taala joxoon kilifteef googee ñoom ñooy mujj di rey wala ñoom ñooy mujj di néewal doole ña yàlla jiital si kaw ña yàlla jiital mu ne boobaa nu muy mel mu ne ko nag xamal ne yow amiral muminin mu ne na nga fàttaliku bu baax a baax dee ak li nekk ci ginnaaw dee mu ne na nga fàttaliku dee ak li nekk ci ginnaaw dee mbokk yi am na nit ñoo xamante ne xalaatuñu dee du ñu fàttaliku dee du ñu tëdd ba seen xel dem ci dee nit ki bu nekkee ne am xelam dina dem ci dee bu nekkee dinay fàttaliku dee am na lu ñaaw lu bon loo xamante ne du ko def mukk du ko du ko xalaat a def wala bu ko nit buuse woon nguuru aduna waru ko koo yóbbee li nga xamante moom mooy moom mooy alalu aduna waru ko koo yóbbee motax tax mu ne ko fàttalikul dee yow yow yow amiral muminin bayil xel ci de waye bayil xel la nek ci ginaaw de la nek ci ginaaw de mom moy fayanto moy ajana ak sawara mu ne ko te nga bayil xel bu baakha a baax ah bés bo deewee ña lay gunge ñalay gunge ñu néew lay nek waye la nga xamantene nak do am nak kula jàppale mukk mu ne ko nag fexeel ba amub yóbbal bo xamantene mom nga yobale fofa ci sa borom subhanahu wa taala bés booy dajek mom mu ne ko nak na nga baye xel bu baakha bax yow amiral muminin ne da nga ami keur waccu way bu bokul ak sa waccu way bi waccu way ngay am bu bokul ak sa waccu way bi sa keur gi limuy taru taru sa fauteuil yi limuy cher sa auto bi limuy luxe limuy ki yoy yep yëpp da nga ko fàtte sa yére yu rafet yi nga don sol da nga dem ba nga xamantene ay ay percal wala ay yére yi wex la lay wutal waaw ay seur ay seur la lay laxas laxas la. yeew la ba nga ne ngodd ne yàlla waa ngi nii waaw muy buur bi muy baadoole bi muy kilifa ga ak kilifa gu munti doon nag ci kilifa yi nag bésa gi ñëw ñu tëral la bésa gi ñëw ñu tëral la yeew la ba nga ne ngodd tëral la jàkkaarloo ak yow nag di la wax wax ji naan yàlla kii de ab jaam la woon mi ngi nii sab jàmm la baayam sa jaam la woon yaayam sa jéebéer la bu daan def lu baax yàlla na nga ko jégal bu nekkee ku daan def ab safaan la yàlla ko yërëm ah li am nag moom mooy suñu diggante ak moom mooy mu dee ñu jullee ko yàlla boo ñu xañ tuyaaba yi te moom mii yàlla boo ko boo ñu fitnaal ginnaawam ñu daal di yenn waaj a jagat jagatee ko gas kàmb ba mu xóot gisagu leen fi kilifa gu dee mukk ñu ne nañ ko wékki ca kaw dañ ko aj ca kaw di ko toog di ko xoolaan gisagoo ko gisagoo kilifa gu dee mukk ñu nañ ko dugal fii climatiser ko nangam ak nangam wala nga dugal ko ci frigo bi moom waruñu ko suul ci suuf kilifa gu dee gu nekk daañu la gasal ba mu xóot ñu dugal la ca biir te pax ma nag yaatu yaatu yaatu yaatu munta egg ñaari mètre su yaatoo ba yaatu du egg ñaari mètre waaw su su su su guddee ba gudd du passé ñaari mètre du passé ñetti mètre ñu dugal la ci biir suul la ca biir doo fa nekk kenn ku dul sa jëf mbooloo ma nga àndaloon wàññeeku nañu jabar ya bàyyi nga leen ca kër ya doom ya bàyyi nga leen ca kër ya alal ja bàyyi nga ko ca kër ga ñu delluwaat ca kër ga commencé noos dem len legi ci deji jamono yi ay camion ay camion ji ngay gis nga ñu indi ko indi ay mbana indi ay nag indi ay xar indi ay ginar ray yaa ngi dégg guddi ñu dor seeni ciere dor seeni seen i tufe bu ñu xëyee def seeni ndjar def seeni ataya te nak bi maanaam dañoo amub dejj dëji léegi yi ak ngénte yeeg ceet yi mënatu koo xàmmee kon yàlla ñu yàlla defal jam mbokam julit bayil xel kilifa gade dafa waxu won ba ca armeel ya taxaw ne yéen waa armeel yi kaay leen mo wax leen yéen wa armeel yi ñu sul fi kay mo wax leen xibaar bi ngeen bàyyi seen ginnaw seen kër ya tasna seen jabar ya sey nañu yeneen góor nga leen tak seen doom ya ngeen ba ngeen ñuy joy ñu ngi leen di jooyloo seen alal ja ngeen fi bàyyi won ñu ngi koy jëfëndiko seen oto seen auto ya ñeneen ngi koy dawal li da moy xibaar bi am fi ñun yéen nak ban xibaar mo am ci yéen mu daldi gesu nak mu àndaloon wallahi buñ ma mënon tontu da ñu ne inna khayra zadi taqwa yobal bi gën ci yobali mom moy ragal yàlla kon bàyyil xel yow kilifa gile bàyyil xel yow mbokkam julit mi le xasanul basri nee na ko xamal ne da nga am wàccuwaay wu bokk ak sa wàccuwaay wi te foofu ngay wàcc te bu boobaa sa àndandoo ak sa soppe yëpp daañu la daa daañu tàqalikook yow sa àndandoo ak sa soppe yi ña nga ña la daan yuuxu camarade camarade doo ci gis kenn waaw ñu wàccee la ci biir suuf yow kese ñu daal di la fay bàyyi keroog nag doo fa gis mukk lu dul la nga xamante moom nga fa yóbbaale woon ndax nag da nga jakarlo bés bo xamantene bés la bo xamantene nit dina daw ndeyam di daw bayam di daw mbokam di daw ab xaritam di daw jabaram di daw ay domam kon nak man duma daw sama papa di daw sama yayi daw sama jabar daw ay dom daw ay goro ba pare ma bëgg la yóotu yow ma nga xamantene bokku mo won ak yow dara ma la kay ma fat la duma ko def mu ko yow amiral muminin bayil xel bés bu yàlla subhanahu wa taala jeqir be qabru yi génn li nga xamantene mo nekkon ci dënn ya secret ya ñu nëbboon ba ngay dem di signer ay accord ba ngay dem di làqu sa biir kër ba nga nekkee sa biirub néeg ba nga nekkee ca wanag ba nga nekkee ci sa magasin ba ba nga nekkee ci sa daara ja ba nga nekkee ca jàkka ja ba nga nekkee ca jumaa ja ba ba nga nekkee ci ruq ba loo mun a def bàyyil xel ne bés a ngi ñëw yow ma tub la sarair bàyyil xel ne bés a ngi ñëw secret yooyu yëpp borom bi soota dina la ko tegal waaw tey bu nekkee doomu aadama moo mun a am xel mu mu mun a defaree li nga xamante mooy ay caméra cassé mu mën a defar am xel mu am xel moo xamante ne moo mën a defar ay caméra yoo xamante ne nii ci ay bi maanaam dañ koy def ci ay marché def ko ci mbedd yi def ko ci nga xamante ne lu waaye def bu ñu delluwaatee foofa gis ko fa waaw tey ana yàlla mi nga xam subhanahu wa taala mooy ki sàkk xel mi defar loola mu ne ko yow amir al muminin mu ne ko bàyyil xel ne yow yaa ngi fii ci aduna yaa ngi fii ci aduna yaa ngi bi maanaam fexeel ba bul attee si jaami yàlla yi li nga xamante mooy atteb ñi réer fexeel ba bul nekk kuy atte jaami yàlla yi atteb ku réer mu ne fexeel ba bul ànd ak bul jaar ci yoonu tooñkat yi fexeel ba bul jël ñi nga xamante ñooy ñi néew doole ñi ngay xiirtal ñi am doole ci kaw ñi néew doole ñi nga xamante ne du ñu am ci ñoom yërmande du am ci ñoom li nga xamante ne moom mooy yërmande am ci ñoom ak ñëwent mu ne ko nag bu boobaa ah boo ko bu ëllëgee da nga yenu say bakkaar yi yenu bakkaar ña nga doon liggéeyloo yenu bakkaar yi ña nga jiite woon waaw nga yenu sa diisaay yenu diisaay ñoña yenu diisaay ñoo xamantene sax xamoo leen woon mu ne ko nag bàyyil xel bu baax a baax moo tax xasanul basri xutbaam bi wala li nga xamante mooy leetaram bi mu bind ko mu nekk lettre bu am solo yónnee ko ki nga xamante mooy Omar ibn Abdul Aziz doon ko ci jàngal doon ko ci xamal doon ko ci fàttali doon ko ci waar li nga xamante ne moom la njiit lu mandu du mel mbokam julit bàyyil xel bàyyil xel subhanahu wa taala bu la joxee doole bayil xel na borom be la ëpp doole bu la borom bi joxe kattan bayil borom bayil xel na borom borom borom ya borom bi yàlla subhanahu wa taala mo la ëpp kattan mo la ëpp alal waaw ndax moom borom bi subhanahu wa taala lu way am lu ne ay magasin la ca yor moom borom bi subhanahu wa taala lu way am lu ne moom borom bi ay magasin la ca yor moom borom bi subhanahu wa in min shay'in illa indana khaza'inu kon nañu bàyyi xel bu bu bu baax baax ci loolu ahbabi آه عمر بن الخطاب آه بيغا خامتيني اتنا اتوم نيار فوك اك نيت سي غدا يونت بي صلى الله عليه وسلم دا دم فيني واخ ابطح مودادي نيان يالله سبحانه وتعالى دادي جامبات بوبام تاوات بوبام فا يالله سبحانه وتعالى نيو يو يالله فيما تولو سماي ات بمانا كوماسنا كوماسنا آه ماغي فيما تولو سماي كاتان نيونا تي سماك نجابوت تسارونا ndax njabot gi bobu fekk na l'islam tasarona fu ne bo demé Irak da nga fa fekk l'islam bo demé Jordanie da nga fa fekk l'islam bo demé sham da nga fa fekk l'islam bo demé Khurasan da nga fa fekk l'islam bo demé Dahawun da nga fa fekk l'islam l'islam tasaaroo na Omar ibn Khattab ne samak njabot tasaaroo na sama njaboot tasaaroo na yow sama borom te sama doole néew na sama doole néew na samay at ngi dem yow borom bi nak fi ma toll ni lima soxla rek moy nga jël ma nga jël ma te nga may ma shahada nga jël ma te nga may ma shahada fi sabilillah shahada fi sabilillah moy ma de ci saw yon yow yàlla waye la gëna yéme nak ci ñaanam goge moy mom umar ibn Khattab da doon ñaan yàlla ash-shahada fi sabilillah ba pare nak diko ñaan nak ne bu may dé na déwé ci Madina bi nga xamante ne fi la yonent bi sa salaam tëdd ah mu nekk nak mbir mu doy war ndax bobu Madina dekk ab julit la mo nekkon mo nekkon ad dawla mo nekkon état islamique bi nga xamantene fa la mbir yëpp daan ko léegi amatul ay yëfër mom te mom mi ngi ñaan yàlla shahada ba pare di ñaan yàlla amé ko fofu nga xanté moy Madina mbir mi yéme lool waye nak suñu borom yàlla subhanahu wa taala lépp lu mu yombal mu yomb waaw ci la yàlla subhanahu wa taala daal nango ñaanam ge mom umar ibn Khattab euh ki nga xamante ne moom mooy Abu Lu'lu'a muy Fayruus nga xamante ab majus la won nga xamante mi ngi bayé ko won fële nga xamante ne moom mooy côté Perse waye mom ciosanam ab Rome la ciosanam بمعنى آه، مجوس مجوسي لا وان واي ميغي دكي وان كوتي روم روم ني نم موم مو نيو تي ابن الخطاب امون اي مير يوم كو جامباتال عمر دادي كو كوي دادي كوي دادي كوي دادي وخانتيك موم اي مير موم فاي روس بمعنى مو دادي باي با فجر جوت عمر نيك تي سابي دي دفر دي دفر سابي نيك فاي روس ميغي يوري yaa ngi dégg ba mu ko jamee ñetti yoon yoo xamante ne moom Omar ibnu Xattaab ci la daanoo am na ñu ne juróom benni jam-jam la ko jam te am na boo xamante si suufu jumbax bi la ko jam foofu la Omar ibnu Xattaab daal di daanoo ñu jël Abdourahman ibnu Awf daal di koy jiital ci palaasu Omar moom moo jiitee keroog julli ga xoolal waxtu julli jot na jam nañu amirul muminin nit ña mënoon nañoo tasaaroo waaye waxtu wi jot na te waxtu yàlla wi subhanahu wa taala dañ ko war a jooxee ñu daal di jiital keneen ku ñuy wax abdurahman ibnu awf am ñu jël omar ibnu xataab rawale ji ko bi maanaam yóbbu ko këram waaw foofu moom kii nga xamante ne moom mooy saay-saay boobu daal di jam keroog lu tolloo fukki nit ak ñett fukki nit ak ñett jam na leen ci biir jàkka ji waaw fukki nit ak ñett jam na leen juróom benn ñi ñoom dañoo daal di dee ci saa si noonu la benn waay bu ñuy wax Abdullahi ibnu Awf Abdullahi ibnu Awf daal di koy muur ak benn daal di koy mbaal ak benn benn benn mantu la ko mbaale moom abu bi mu xamee ne mbaal nañ ko te xam nañ dañ koy jàpp te buñ ko jàppee dañuy teg ci kawam xadd ci la xaroo ci la xaroo rey boppam waaw ñu yenoo Omar yóbbu ko këram deret jaa ngay tas deret jaa ngay deret yol deret jaa ngi walangaan moom Omar ibn khattab lu jiitu jant bi di fenk muy xam di ximmi sa bu ximaliko ko mu daal di ne waaw ndax julli nañu ndax julli nañu ñu ne ko waaw mu ne nañu julli ndax kat ku julliwul amoo chance ci l'islam ku julliwul amoo chance ci l'islam ku dul julli amoo chance ci l'islam ku dul julli amoo chance ci l'islam waaw ndax bu ngi ne ab jullit mooy kiy julli ñun ñëpp d'accord nañu ay olof lañu su ngi ne ab maçon mooy kiy tabax bu ngi ne ab tailleur mooy kiy ñaw bu ñu waxee ab chauffeur mooy kiy dawal kon nan ngay mën a waxee ab jullit ku dul julli nan ngay mën a ab jullit كودول جولي كودول جولي كونه اكو مونتي دون كودول جولي كونه كودول جولي كونه واو اب يفر نغا يونتي بيس سام لي واخ رك موي ام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه بوم كي دوخ سونو ديغنت نيوم دال موي جولي جولي جولي كون نانيو باي خيل سي جولي امو لوك داغلي نيت كي دال لي فيك ميغي اندكم خلام خيل دارا سيكوتي نيكول اب دوف نيكول خالي بو ندو بو خامتيني kookee dafa war a julli dafa war a julli ab jullit day julli ku julliwul tuddal leneen waaye doo ab jullit kon loolu Omar ibnu Xataab da ko doon def benn ci ci ci ci ci ci ci li nga xamante mooy digleem lu baax ak tereem lu bon moom Omar ibnu Xataab nekk na ci métit woowu am benn xale bu góor bu ñëw di ko seet si yére yaa ngay buubatu bi xale bu góor bu ne ginnaaw mu ne woowal leen ma ko ñu woo ko mu ñëw mu ne ko yëkkatil sa sa sa sa sa sa tubay ji yëkkatil sa mbub mi yëkkatil sa sër bi kooku daal di ko yëkkati mu ne ko yëkkati yëkkatil kooku yëkkati ba mu egg ci digg yeel bi mu ne ko waaw lii moo gën a laab lii moo gën a laabal sa yére lii mooy li nga xamante ne mooy ku ragal yàlla nii la war a solo bi maanaam colug ku ragal yàlla warta direeku cooru ku ragal yàlla warta buubatu colu ku ragal yàlla warta bi maanaam nekk loo xamante ne ni dafay xañaaral waaw motax Omar ibn Khattab ne ko yëkkatil sa yére bi li moy li nga xamantene moy fessel sa ragal yàlla waye moy laabal sa yére Omar ibn Khattab mbokk euh bi nga xamantene Abu Lu'lu'a muy Fayruus jamna bopam bi mana reyna bopam Omar ibn Khattab fekk na bobu mbir ma métti na lol ñu yéen ko yóbbu kërëm nit ñaangi joyo diko setsi ñu melni ki ño xamantene seeni taw yu góor lañu lañu la ñu ñàkk keroog jullit mu ne kan mooy ki ma def nii ñu ne ko abu lu'lu almajisi yi nga xamante ne jaamu mughira ibnu shu'ba la woon waaw foofu ibnu omar nee na ibnu abbas nee na ibnu abbas doom baay yonent bi nee na ma daal di gis mbégte ci kanamu omar bi mu nee rek abu lu'lu a moo ma moo la jam ko am majus la woon jaamu mughira ibnu shu'ba la woon nee na ma gis mbégte guy feeñ ci kanamu omar ibnu xataab nee na foofu omar ibnu xataab ne mu ne alhamdulillahi alladi لم yabtalini bi ahadin yuhaajuni yaqulu laa ilaha illa allah mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xamante ne nattowuma ci may ci may ci may ci may dagg sante wala may taxaw ëllëg di layoog koo xam ne day wax laa ilaha illa allah kon kii ab yéefar la kon kii moom neex naa layool waaye koo xamante ne ab julit bu ma reyoon boo liggéey may taxaw fekk kooku dafa bokk ci ahlu laa ilaha illallah mu ne loolu daal mooy li ma tiisoon waaye comme ab yéefar a ma rey baax na waaw noonu Omar ibn Khattab آه، دادينا وول للمسام بوكي نيو وول كو عثمان وول كو علي وول كو طلحه وول كو زبير وول كو عبد الرحمن بن عوف وول كو سعد بن ابي وقاص نيو ني لا جيلون نان كو وو با ني نيوي مو دادينا لين نك خول لين دم لين ген توك ген وقتانه ميرم جوليت ني تا ген سيت سي سين بير كين كيغا خامنتي موي باخ بور نك امير المؤمنين ген تان كو سين بير واو فوفو عمر بن الخطاب لولا ديف بمعنى نيو ني مو ñoo ñooñu la wax ne nañu tànn seen biir ñoom juróom-benn ñooñu seet ki nga xamante mooy baax mooy yéwén pour jiite mbiram jullit ñi ñu daal koy jiital Omar ibn Khattab euh, deret jay sotteeku ñu daal di koy indil li nga xamante ne mooy am soow ba mu ko indilee soow mi mu daal di naan soow mi soow ma daal di génn daal di jaar ci fi nga xamante mooy jam-jam bi fi ko waa ji jam foofa mu daal di ne nag ah wax dëgg yàlla bu nekkoon ne am naa nag àdduna bu nekkoon ne indil nañ ma àdduna ak ci biiram yépp tey mun na ma kaa joxe tey ngir mucc ci lii ngir muccu ci li mu ne nag waaye nag yaakaaruma lu dul ne aw yiw danaa ko ci amee ibnu abbas ne ko ah boo waxee loolu de yal na la yàlla fay yow omar waaw xanaa du yow la yonent bi saa sallam waxoon ne yàlla dëgër dina dëgëral diine ci yow bi maanaam ci yow la yàlla dëgërale diine ak julit ñi waaw ndax jamono ba julit yi nekkee ca màkk tey am tiitaange di am lu ñuy ragal yow mii la yàlla indi woon nga dugg ci islaam daal di islaam daal di tedd jullit ñi daal di am doole yow mi la woon yow Omar ibn Khattab kon nag sa islam de tedd nga la woon waaye nag si sa islam it la jullit ñi daal di nekkee ñoo xamante ne kenn ñemetu leen noggatu yow yaay ki nga xamante ne ba nga jógee di gàddaay it ñu ne woon doole àndoon ak yow bi maanaam yaak ñoom a ànd ba egsi fii nga xamante ne moom mooy Madina ahbaab yi kii nga xamante mooy Omar ibn Khattab ci melokan wowu domam abdullah ibn umar yekati bop ba tek ko ci tànkam muné ko a kii nu mu yow papa yow abdullah dafa ne ko mu yow abdullah ya abdullah ndax da nga ma sédel bu ëllëgee yowmal qiyamah ndax da nga taxaw sédel ma muné ko ko waawaaw dina la sédel muné ko allahumma lakal hamdu yow sama borom yàlla yow lañu wara bi maanaam yow yaay yow yaay ki ñu wara a sant yow yaay borom cant yow lañu wara war sant mu daal ne ko abdallah teggil sama bopp bi fi nga ko teg nga teg sama lekh bi ci suuf teggil sama bop bi ci sa tanki nga tek sama lekh bi ci suuf neena ma ma euh bop bi jël ko tek ko sama tànk mu ne ko waxuma loolu dama ne teggil teggil sama bop bi fi ko tek nga tek ko ci suuf sama lekh bi na lal suuf sama sikim bi na lal suuf waaw fofu mom ki nga xamantene mom moy Omar mu daal ne waylak waylu ummaka ya Omar إن لم يغفر إن لم يغفر الله لك يا عمر من تذكر ñen la yow Omar toskare top na ba top sa yaay yow Omar bu nekkee yàlla yàlla jégalu la yow Omar waaw Omar mi ngi xoolal wàcce boppam mu ne toskare ñeel na ma man Omar ak sama yaay yépp bu nekkee ne ëllëg yàlla jégalu ma man Omar ci noonu moom Omar ibn Khattab ci la ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala jëlee moom Omar ibn Khattab mbokk yi kii mooy Omar ibn Khattab ki mo nekkoon taxaw mo li mo nekkoon taxawaayam lii moo nekkoon li nga xamante ne moom mooy dundam nekkoon koo xamante ne ku jub nekkoon koo xamante ku baax nekk koo xamante ne ku ku ku ku yéwén nekk koo xamante ku yi aw yiw ba ibnu mas'ud da doon wax wax ju am solo mu ne wadittu anni kuntu xaadiman li omar xata amut mu ne man dama ne woon siiw nekk booyu omar ba keroog may dee مم عبد الله ابن مسعود مدن وخلوله وات لو أن عمر أحب كلبا كان أحب الكلاب إلي من عمر بو ببقون بن خد من عمر بو بن بين خد ربقوكو من خد بابو مو يجل مقل المنبالم خد واو آه، كوكو مو ابن مسعود مو سيدة مو أم تموياش بو أم بيتو عمر بن الخطاب متخنين صدقه والله ابن مسعود وسلام على عمر بن الخطاب في الخالدين من والله ابن مسعود وخندق يالنا يالا دفل جم عمر te boole ko ci ñooñee nga xamante ne ñoom ñooy ña nga xam ne dañuy des te incha allahu taala day des ndax aw turam day jolli ba yowmal qiyaamam waaye bu yowmal qiyaamam moom Omar ibnul Xataab day ànd ak yonente bi sa sam ci ajjana ya gën a kawe ndax nag yonente bee ko seede loon loolu moo ne woon Abu Bakrin fil janna wa Umaru fil janna وعثمان في الجنة وعلي في الجنة بإن العشرة المبشرون بالجنة كون كيمو يا عمر بن الخطاب لي مو نكون دندم كون كيمو نكون نيارل بخليف بو يونس النبي صلى الله عليه وسلم كيمو حفصة واي كيمو بابا عبد الله ابن عمر كيمو موي كيغا خامتني مو تخون جنو أبو بكر تخو خيتوي ki moy ki nga xamantene ci khilafam ak manouté dafa tasaro ki moy ki nga xamantene ab khilafam bo ma sa taxaw aw tuddu aw turam ci réewu yéefar ya ñom ñëpp wek nañ ko ñom ñëpp joxon nañ ko cër ngir ragal yalla kon sa bo ragalé yàlla ci mbindaafo ni yàlla yi yàlla def mbinda mbindaafo ni yàlla yi ragal la waye sa bo ñemé yàlla subhanahu wa taala ci ay santanem yàlla def nak ñi gëna néew doole sax dañ lay yeb kon yàlla ñu yàlla defal jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu ngi sant di gërëm ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci euh, réalisation bi muy Issa Issa Ngom ak euh, Bokar Bokar Dia incha allahu taala di ñaan yàlla yal na yàlla defal jàmmi àdduna defal ñu